ñu daal di def noonu xool yi lii di revue des lii di euh, journaux yi tey lag lañu xëyee euh, ci seen xët bu njëkk dañ koy dooree ak lii quotidien mi ñëw ci wàllum blanchiment d'argent mel na ni Sénégal daal jamono ji ñu ngi koy euh, bàyyi xel bu baax a baax mi ngi nekk haute surveillance ndax liñ fiy gis mbir mu mel noonu dafa bëri loole lañu xamle ci xët bu njëkk yéenikaay bii di lii waaye itam ñëw ci kàddu ak du mbay bi nga xam ni da ko rek wax Macky ne euh, jot na mu daal di seetantal euh, doxalinam réew mi quotidien ñëw ci professeur Moussa Seydi mi nga xam ni infectiologue la ñu daal di koy jox kàddu mu daal di àddu rek ci wàllum vaccin bi nee na amul benn yoon lu tax ñu war a am euh, tiitaange ci vaccin bi nga xam ni moom moo dugg fii ci biir Sénégal fiabilité am donc moom rassuré na askan wi par rapport ak vaccin bi. gannaaw réew mi quotidien Walf Quotidien keneen la daal di dalal moom mu ji Aliou Tine nekk njiitalub eh, Africa Jom Center wax lu bëree bëri ci wàllum actualité rawatina mbir mi nga xam ni moo di mbirum Ousmane Sonko ak aji Sarr lépp mu ngi ci biir eh, Walf Quotidien gannaawal fu quotidien ñu daal di xool beneen yéenekaay le quotidien la nga xam ni dafa ñëw ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr moom ak arestation yi nga xamante ni am na ci ba ci sax ab takk der ak benn gendarme benn policier ak benn gendarme boo xamante ne dañu soupçonné ni ñoom ñooy xibaar yu ci bëri kii di Ousmane Sonko xibaar yu bëri ñoom ñoo leen koy euh, jox donc loolee tax na ñu daal di leen di euh, yóbbu fële ca brigade bu prévôtal ñaari policier yoo xamante ni itam ñu ngi leen di surveiller loole lépp ñu ngi ko xam la ci yéenikaay bi tribune quotidien ñëw ci euh, semaine décisive loolu la ko tuddee pour Sonko ndax semaine bi mel na ni euh, dinañ xam lu bëri euh, ci mujjantalub convocation boobu ñu envoyé woon Ousmane Sonko dara fa dem ab am déet bu ñu xoolee rek tribune loole moo tax mu ne semaine bi moom lu bëri dina leer ci mbir moomu l'observateur dafa daal di ñëw ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba tey di wax rek ne euh, religieux yi nag ñoom ñoo euh, demoon seeti ji Ousmane Sonko ku ci mel ni Abbé Jacques Seck ak Mame Mactar ak ñamu àndal dem nañ dem rek nemmeeku ji kii di njiitalu euh, Pastef Adji Sarr itam fas yéene nañ ko rencontré tey ji fële ci adresse am fi mu dëkk fii ci Dakar loole mu ngi ci xët bu njëkk bu l'observateur gannaaw l' observateur beneen yéenekaay bi ñuy euh, wax moo di Dakar Times bi ñëw euh, ci conflit bi am fële ca Casamance mu mel ni MFDC euh, rébellion bi daal di nay fay loolee la Dakar xëy xamle ci xëtam bu njëkk. gannaaw Dakar ñu ñëw ci titre Direct News ci projet bi mu. tuddee euh, projet boo xamante ni dese na euh, jaar yoon wala boo baaxul bu patriote bi di Sonko noonu la ko xamee euh, di wax rek ne bu nekkee moom jàpp na ni deful dara ana lan moo tax mu mën a bañ a dem wuy ji ak lu muy risqué ci ñàkk wuyu boobu yeneen ponk yoo xamante ni développé na ko ci biir ngeen mën tijji direct news yi am ci ay détails yu gën a yaatu. les ko ñëw ci convocation bu Ousmane Sonko di wax rek ne lettre bi nga xamante ni assemblée nationale war na ko jox juge d'instruction bi lettre boobu ba tey euh, jotaguñu ko te notifié guñ ko juge d'instruction bi loolu moo bokk na ci li nga xam ni moom moo retardeel mbir mi. gannaaw les ñu daal di xool beneen yéenekaay di euh, l'évidence euh, ñëw ci violence yeeg euh, wàllum tëj yi ak arrestation yi di wax rek ni chef religieux yi jiitalub ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa diine yi war nañoo réagir addu ci bile mbir l'évidence yéenekaay moo xamle lu ni mel ci xëtam bu njëkk gannaaw l'évidence euh, suñu lomb ñëw ci ouverture arène bi ci biir Sénégal gannaaw un boo xamante ni ab diirub at bu ñu toogee kenn euh, tijjiwul arène bi ñu daal di koy tëj ndax coronavirus bi tey ci 1er mars bi la fas yéene euh, tijji ay buntam loolee la suñu lomb xëy xamle tey ji ci xëtam bu njëkk lool moo nekkoon li gënoon fës ci wàllum yéenekaay ci revue des titres leen di indil fajar bu jot ñu daal di